alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba baad maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak ci nekk ci bitim réew ci ndigalal xalifa cheikh mahamadul maahi cheikh ibrahim Niass ak ci ndigalal rakkam di jëw dinam xalifa cheikh mahamadul maahi mi cheikh sëriñ bay Niass ak mboolem njaboot gi di yëgal mbokk jullit yépp ak mbokki taalibe yi ak soppe fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñaangam alxuraan mi nga xam ne dañ koo baaxoo woon def ci kër ma Madiabel at mu nekk su waa Medina defee seen ñaangam kàmm ci ndigal Mawlana Cheikh Ibrahim Alaaji Barham Niass radiyallahu anhu daan ko jël di ko def loolu nag moom la ñuy ba léegi jii nii moo tax sëñ bi ne sëriñ bi ne naa ko yëgal mbokki jullit yëpp yëgal ko mbokki taalibe yëpp <clears throat> rawatina ñi nga xam ne dañoo am ay daara fuñ mën a nekk ci àddina bi nañ fexe ba àllarba insha allahu buñ julee fajar bi pare ci kër Madiabel Medinatul kër ñeseen kër ma ci la sëriñ bi di ubbi ñaangam alquran ma su ko defee ñu continuer ko ñu yàlla def ñu mën a teew kër ma Madiabel ñu teew fa ñi nga xam ne itam yàlla def mënu ñëw teew ñu teew ci seen dëkk yi ñu mën a nekk ñoom ñëpp nañ jàng te suñ paree ñu fekkee jokkoo Moura Abdoulaye bi nga xam ne mooy imaamu jumaaye Kër Madiabel ñu jokkoo moom wax ko lim biñ am su ko defee buñ jullee ajuma bu pare sëriñ bi teew ñun ñëm ñu teew ñu mottale ko xatma bi ñaan yàlla li nga xam ne moo ci borom pee bi jublu woon yàlla defal ñu ko ñu xàggale ko ci jàmm ñu ngi jublu nawet ñu ñaan yàlla yàlla may ñu nawet barke may ñu ngubeef yu rafet bokk ci ñu koy muudoo tey sant yàlla tey ñaan yàlla itam jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ak mboolem réew julli fu mu nekk loolu daal mooy déclaration bi maa ngi koy yëgal ñëpp ci turu xalifa bi <clears throat> di ñaan yàlla kenn ku ne da nga fexe ba am ci ay kaamil daare yi nga xam ne ñoo nekk ci tund wa ak yi ci Medina rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk kër Maba ci kër sëñ Daara Alaaji ñaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk Touba ñaan Cubbeen ak mboolem dëkk yi nga xam ne wër nañ ko yëpp ñu ngi saako ci ñoom ñoom ñëpp ñu góor góorlu ba fexe kaamil yi bëri ndax loolu lépp suñu njariñ la maa ngi wax itam suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew képp ku ko yàlla man loo nga jàng alquran soo paree nga jokkoog man ma man ko jox sëriñ bi lim bi date bi mi ngi war a nekk le vingt quatre mooy ak le vingt cinq ak le vingt six maanaam tey la dimanche bu bii di ñëw incha allah ci la ñuy commencé yëf yi mu jeex la vingt six ñu ngi ak ci mboolem taalibe yi ak soppi ak ku ko yàlla man loo rek foo may nekk ci àddina bi rek nga jàngal Qur'an ndax lool lépp suñu njariñ la loolu daal la ñu waroon a déclaré euh, ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi siyaare ñëpp ñu ngi ñaanal Braham anniversaire yàlla dimbale ko dimbale ki nga xam ne moo ko jiite yàlla defal ko jàmm bi ko munte ak ndax waxtu wuñ soxlaa mu dëgg soxlaam yëpp ñëw defal ñu ko loolu dafay wane ci kër gi la bokk ci doom yi la bokk kon na ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullah